waaye di nuyu Serigne Salih directeur général di nuyu mboolem daara amma waaye di nuyu mboolem enseignants yi ak jàngalekat yépp ak élèves yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar tey jii nag ñi ngi ñëw dakaar ñëwoon fii ci Grand Théâtre doon teewe itam fête gu mag gu am solo gi président de la république doon teewe di sargal ndongo yi nga xam ne ñoo jiitu ci concours général bi ci Sénégal ño xamné yit it ay euh, lim bu bëree bëri bu takk bo xamné mënu ñu xam sax lim ba ñoo ci concours général ñu tànn ci ñi nga di len sargal yalla dogal nak Al azar am ci ndam lu maga maga mag euh ñu it sunu école ne ci Al azar di école soxna May mona momit am ci ndam lu maga maga maga mag ba nga xam ne ki jiitu senegal ci arab bi ci étude islamique euh, école Al Azhar soxna Maymuna ci la nekk waaye ci étude islamique itam ki ci jël première ak sisit nekk itam ci Al Azhar soxna Maymuna ñoom ñaar itam ginnaaw bi ñu defee bac ba pare am nañ mention très bien ci seen baccalauréat waaye itam ci première ci ka fa jël première accessit itam nekk ci école al azhar soxna Maymuna école bi nga xam ne nag école bu mag la Cheikh Mouhamadul Mourtada moo ko fondé tuddee ko soxna Maymuna di école bu am solo résultat yu mag yooyu ren di 2021 moom moo ko jël nga xam ne une manière générale di al azhar boo demee itam ndaam di al azhar ndaam ñu jël deuxième bi ci étude islamique ci bac bi ci ci euh, concours général bi ci niveau bac ci terminal ñoom ñoo ci jël deuxième ci niveau national kon bu ñuy wax al azhar am nañ ci ñeent ñett ñi bàyyi ko ci école bi ñu dénk di école Soxna May Muna beneen école bi di école al azhar ndaam di école xaadi tudd ñu tuddee ko markas xaadimu rasul euh, kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di sant ñëpp lii nag dañuy wax ne ndamal lislaam la waaye dañuy wax ne ndamal yoonu murit la ndax ndam lu toll nii euh, bi Cheikh Ahmadou Bamba di génn fii ci réew mi yaakaar naa ku ne xam na ne ba mu fiy jóge euh, lislaam la doon xeexal waaye xeexul woon ngir ngir sos ay dëkk xeexul woon ngir dajale mbooloo ndax lu mu ci mën a doon buur yee ko ëppoon te teewul tubaab yi dañ leen ko dañ leen fee bàyyi génne ko moom kon ku ne xam ne ne sëñ Tuubaa lislaam la doon xeex kon lislaam a am ndam tey ndax buñ ne Sénégal gépp ci étude islamique ki ci raw Touba la dëkk école bi mu nekk itam Cheikh Mouhamadul Mourtada di doomi Cheikh Ahmadou ma moo ko fonde kon dañuy xam ne ndamal lislaam la ndamal Serigne Touba la waaye ndamal tarixa yépp la ndax Serigne Touba li ko taxoon a génne mooy lislaam kon bu amee ndam tey dañuy xam ne lislaam am ndam kon loolu mm, mbokk yépp dañ ko war a xam mbokk yépp itam dañ ko war a yëg ñu yëg ni sëriñ Touba ci fu mu mën a doon wàll gu mën a doon boo ko fa nattee dafay jiitu ci lépp rek loo mën a gis euh, ak jiitoom da cay fés waaye loolu lépp nag euh, sunu borom ak ko jaraloon ndax dañuy wax ne sunu borom bu la jaralee lépp lépp day wëlbati ko ñëw ci sa ñëw ñëw topp la kon loolu mooy na ne ndam yi ñi nga xam ne moom la al asar am euh, ndam loolu dañ koy sagoo waaye dañuy xam ne yoonu murit a koy sagoo ndax ndamal yoonu murit la ndax Serigne Touba kan moo liggéeyi woon ngir lislaam kon bu lislaam amee ndam dañ koy delloo Cheikh du Bamba kon ñu ngi ciy sant ñëpp nag dañoo kontaan bopp moo tax kàddu yi xëy na du mën a gudd waaye ñu yégee suñ kontaante ak sunu sunu yëg-yëg ci li nga xamante ni bii mooy ndamal lislaam tey euh, du ma ne sax mooy ndamal al azhar waaye ndamal lislaam la ndamal Cheikh Ahmadou Bamba la ndax si Ahmadu Bamba kat bi muy li ko tax a jóg mooy diineeg lislaam kon lislaam bu amee ndam tey ci ñi doon ñuy jongante ci wàllug lislaam ki ci raw ñu ne ci école bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mourtada moo ko fondé waaye wëlbatiku tudde ko soxna may na waaye itam mu jagleen ko soxna yi waaye ñetti jigéen itam génn ci buñ demee ndaamit geneen jigéen génn ci kon day wane ne kon lislaam jigéen lu am importance la ci diine lislaam yoonu murit itam lu bàyyi xel euh, Euh, jigéen ñi ndax Sëriñ Tuubaa ku ne xam ne daf daan tërbiye góor ñi waaye daf daan tërbiye jigéen ñi kon lii itam ab soññee la ci jigéen ñi ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax bu ñee ñeenti ñi raw ñëpp kenn du ci góor ñoom ñëpp ay jigéen lañ kooku kon ab wàccuwaay la bu mag a mag a mag ne jigéen ñi war nañ ko am kon ñi ngi nuyu ñëpp di leen siyaar waaye di sant bu baax itam président de république ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci yëg-yëg gi nga xamante ni bi am na ko mën a taxaw sargal ndongo yi ànd ak ay ministre am kon ñoom ñëpp ak mboolem ñi nga xam ne jàppoon nañ ci liggéey bi di euh, ñi nga xam ne ñooy parrain yi ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu ñoom itam di leen sant ci taxawaay yi nga xam ne am nañ ko ci suñu xale yi kon di yamale fii suñu kàddu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.